frappe la euh, euh, Aliou fan yële passé dañ la fi tegoon loxo ambassade France dégg na leen également ci coowu visa yi mais loolu aussi naka la demee. <laughs> Euh, d'abord damay reetaan parce que gàcce la. Hmm. gàcce pour ñun. comment. xam nga lu tax la gàcce. Hmm. keroog am naa lu mu métti. lu mu métti xam nga mooy lan. Hmm. man doomu sénégalais. ma jël lettre pour dem déposer ñu arrêté ma sama biir dëkk parce que dama bëgg dem ambassade France mais ah ambassade France ñoo ñan ba citoyen bi nga xamante ne dafa am lu ko métti war a dem déposer lettre ñu ne la déedéet ñu teg ko fa xam nga lan moo nekk wax ji wax ji kay mooy est-ce que xam ne ni que ambassade France day sàcc africain yi ambassade France day toroxal africain yi ambassade France. naka la doon di sàcc. sàcc bi xam nga mooy lan. Hmm. sàcc mënul weesu. ñu ne la yow étudiant bi nga xamante ne da nga bëgg dem jàngi fale ca France. Hmm. dafa am benn procédure bi ngay daal di topp. Hmm. frais de dossier maanaam pour outil visa bi ak yooyu noonu. mais ci frais de dossier yi noonu da ngay daal di fay xaalis gën saa néew da ngay fay plus de cinquante mille. mais c'est non remboursable. ah bon kenn du la ko delloo maanaam loolu gis nga France. Hmm. day daal di jël xaalis boobu sàcc ko rawale ko yóbbu fële ca France parfois xaalis boobu la ñuy jël di ko financer yenn projet yi sàcc mënul weesu ñu ne la yow africain bi sa visa boo ko demandé ambassade France mu ne la accepté naa la ko yow amoo droit dem ambassade pour dem jëli sa visa bi ñu ne la da ngay toog mooy sa kër. Hmm. ñu defal la livraison càq-càq ñu facturer ko onze mille francs course ban livre cag-cag ngay fay onze mille francs mais loolu loolu noonu sàcc la ñu ne la déedéet. cest à li nga wax même bu ñu la mayee visa. maanaam même bu ñu la mayee visa bu la neexee ambassade France nekk mooy say derrière mooy ci ni ma seetu. la koy livrer ñu ne la da toog mooy sa kër. mais livraison bi yaa koy fay livraison bi koy fay onze mille francs CFA mais loolu sàcc la ñu ne la déedéet suñ lay envoyé message ñu ne la message bi. da koy daal waaw. waaw SMS. d'accord ñu ne la SMS bi da koy daal di fay maanaam 700 francs 700 francs SMS 700 francs CFA. par SMS par SMS. yow ban message ngay envoyé nit 700 francs dama ni loolu sàcc la ça c'est léegi nag ñun compte tenu tout sax yemul ci loolu mais ambassade France fan nga xam ne que day toroxal africain yi maanaam ambassade France mhm. booy déposer sa visa maanaam sa passeport bi non dañ koy confisquer quoi garde à vue ko. ay nit mun nañ toog par exemple un an deux ans. duñ jot seen passeport sa maanaam joxuñu la visa. da nga am ay yite mais yow sa passeport bi ambassade France téye ko denc ko pour lan ñu ne hey trop c'est trop ñu organiser benn conférence de presse ñu ne dañuy def sitting ca buntu ambassade ba mu sab sab parce que nag tout de même ici c'est Sénégal. bi ñu defee loolu ñu déposé lettre nu mu waree préfet bu Dakar Mor Talla boobu bi nga xamante ne dama koy faral di wax c'est un sale préfet. déet yow tamit. non xaaral c'est que yéen tamit yéen tamit Aliou nag yéen tamit ah vraiment. may ma rek est-ce que parfois aussi du du baax ngeen xool terme yi ngeen di utiliser. may ma rek ma ñëw su ma waxee un sale préfet. waxuma maanaam saleté. Hmm. dama ne sale avec S A L L maanaam un préfet bi nga xamante ne dafa nekk ci waaw président Macky Sall ni président Macky nekkee ci ay waaw France ndax hmm. France bu ko waxee xonk na mu ne cur. bu ko nee weex na mu ne tal moo tax bu ñuy sàcc africain sàcc sénégalais moom président Macky Sall patt lay def moom préfet boobu mu interdit suñu manifestation de manière illégale et illégitime mu tegu ko ci dëgg tegu ko ci fenn moom préfet pour bëgg jàmm rek ñu bind beneen leetre ñu ne ko léegi yow monsieur le préfet donte ne ñun d'accord ñu ak sa interdiction bi léegi dañuy def délégation cinq personnes. Mhm. bind benn lettre de protestation ngir wax yow ambassade France dama ni seen africain yi nga xamante ne da ngay confisquer seen i passeport téye ko lu yàgg. Mhm. nañ leen delloo passeport nu mu gën a gaawee. muy benn ñaareel bi yow ambassade France. Mhm. xaalis bi ngay sàcc parce que nag aussi nag nañ ko waxte dee ñun du ñu ñaaw mooy ba pare. ñàkk fayda ndax. ñàkk fayda bu dul weesu am na ay réew yi nga xamante ne ambassade France day daal di rembourser hmm. par exemple Algérie dañ leen daal di rembourser bu ñu ah déposé ah mais ñun ñun askanu Sénégal kon ko ñun ñu ñooy nooy neex parce que président Macky Sall taxawaayam moom moo tax ba France jàppee ñu loolu moo tax ñun kenn duñu daal di rembourser ñu ne ko yow ambassade dañuy daal di rembourser ñetteel bi mooy dafa am ñu ñuy woowee maanaam regroupement familial regroupement familial mooy ñi nga xamante ne seen njaboot par exemple ñoo ngi fële ca kii ni te ñoom dañoo bëgg jógee Sénégal rejoindre leen même ñooñu. ci yenn réew mi procédure bi dafay gaaw hmm. mais fii. day compliqué quoi day compliqué ñenn ñi seen sëy fii la jaar jaare fa tas. donc ñett yi ñu ne ah ñu bind ko ci lettre bi loolu la ñuy demoon ambassade France ma jël benn lettre ak benn enveloppe. Hmm. egguma sans ambassade France place de l'indépendance lañ ma ne ñaxwaat. waaw ah jàpp ma parce que dama bëggoon dem ambassade France déposer lettre ñu ne waaw déedéet ñu téye ma fan ngay xamee ni que jàpp bi teguñu ko benn yoon hmm. téye ma rek téye ma foofu quoi. waxuñu ma dara <laughs> notifié wuñu ma dara. Ah. mais mais c'est scandaleux. de combien. bi ñu lay arrêté maanaam cinq personnes kese la ñu. délégation de cinq personnes. cinq personnes maanaam benn membre FRAPP. pour déposer une lettre. ak quatre personnes yi ñooñu c'est des victimes. ñu jàpp ma man ak benn étudiant d'accord moo tey nag mais nag quand même comme ñun nu ñu koy faral di wax maanaam kuy bëree daan seule la lutte parce que ama lu tax le matin bala ñoo dem ambassade France ci la ambassade France commencé envoyé ay message étudiants yi mu ne leen seen passeport yi disponible na mais loolu taxuloon pour ñu kii dellu ñu ne déedéet hmm. dañu continuer xeex mais lan moo tax ñu téye ko depuis lors aussi yan yan élément maanaam bu ñu lay delloo sa passeport yan élément de réponse lañ lay jox. ci li taxoon ñu téye sa passeport pendant autant de temps ñu ko fenn ñu ci gën a bëri hmm. seen visa sax dañ ko refuser pour ay motifs yoo xamante ne c'est fallacieux. Hmm. fàtte naa wax lenn. Hmm. sàcc mënul weesu. gis nga ambassade France suñu mbokk étudiants bu ñuy daal di demander visa ñoom ci biir euh, campus France dafa am maanaam date de buñu naan yow étudiant bi parce que dépôt yi soo koy def dafa am xaalis. bi ngay bi ngay dugal léegi dafa am date de par exemple ñu ne la date de limite bi c'est le 15 hmm. mais date de boobu duñ ko daal di communiquer pour nit ñi xam ko maanaam étudiant bi. Hmm. même au-delà de 15 boo demee ci banque pour déposer maanaam xaalis. Hmm. ñoom ambassade France dañ koy encaisser sàcc ko rawale ko biir kii ni France. Ah loolu France dañ koy def. Ah ci biir sélection bi aussi. ci biir campus dafa am ay école yi nga xamante ne. ambassade France maanaam via campus. campus euh, kii nii France bi dafa am maanaam ay école yi nga xamante ne dañ ko daal di def daanaka comme genre ay liste rouge maanaam yow étudiant doo muusaka waane école boobu moom boo ko laalee rek tu es éliminé d'office ñoom maanaam par exemple comme nga école nangam hmm. école boobu boo ko jëlee mais ci sa dossier bi rek yow éliminé nañ la d'office mais pourquoi teguñu ko fen loolu yëpp ci ay stratégie maanaam moo tax ñun ñu wooyewu kon mafia benn mafia maanaam ambassadeur bi fi nekk hmm. lu muy def ni maanaam lii benn mafia la bi nga xamante ne technique la pour sàcc xaalis africain yi su ko sàccee nag xaalis boobu la ñuy daal di jël parfois di ci financé yenn kii nii projets yi. loolu noonu kese la parce que nag il faut le dire chaque année gën saa néew Sénégal dafay demander trente mille demandeurs de visa jëlal kii nii trente mille nga multiplier ko par exemple par cinquante mille. c'est des milliards. Mm. milliards yooyu nag la France di daal di jël di ko sàcc. Mm. yóbbu ko. te état du Sénégal moo tax ñu ne ko yow état du Sénégal na am fulla ak fayda fulla ak fayda mënul weesu ñu ne ko yow état du Sénégal képp ki nga xamante ne dafay demander citoyen sénégalais visa pour mu dugg fële mooy seen dëkk yow tamit amal fulla ak fayda nga ne ko yow soo ñëw Sénégal util visa réciprocité bi quoi ci demande mais loolu la et je rappelle que gis nga ci mais li ngay wax ni doon nañ ko fi expérimenté mais dañ ko teel a dindi. mais mais loolu parce que am na parce que a gis nga commencé am na gis nga France dafa am ay nit ñoo xamante ne dañ leen dugal daal di liste rouge liste rouge maanaam moo yow doo muusa ko waane boo fa demander visa duñ la jox. comme ce genre gi maanaam yow sa xaalis. <laughs> est-ce que non. non man est-ce que c'est comme yéen da ngeen ñëw France dégage vous aussi restez chez ñoom. xëy na ñoom gouvernement France bi ñoom ñooy wax loolu mais citoyen français. Hmm. xam nañ bu baax ñun lu ñuy xeex. Hmm. parce que nous tout de même dañuy xeex France Afrique maanaam nooteel boobu nga am mais gis nga même loolu. Hmm. même votre confrère là. Pape Sidi Fall. demandoon na fi kii ni visa. gars yi ah kii ko bañ ko. ah je vous jure maanaam pour rek wax ni que personne n'est à l'abri nga déposer sa xaalis nii France lekk ko quoi te du la jox benn notification. doo am visa duñ la rembourser sa xaalis. mais loolu ah. sàcc la léegi lan moo tax ñu ne la par exemple Algérie ñoom dañ leen daal ne Sénégal déedéet. en Algérie ça se passe comme ça. ça se boo dugalee sax même buñ delloo mais Sénégal moom. moo ngi noonu quoi. moo tax ñu ne nii nag au même moment on nous parle de trafic de visa à l'ambassade de France boo fekkee yaa bi. noo ko jàngatee loolu. no li li ma la wax rek mafia la rek. benn gangster moo fa nekk. lenn moo leen tax a jóg rawale. loolu loolu loolu kese la. Hmm. parce que même trafic boobu noonu xam nga ni du. yow mooy sa genre bi wala man hmm. mooy sama genre bi moo koy def. ku nekk rek moo ko mën def. jeex na effectivement moo tax ma ne la mafia la. Hmm. te mafia bi nag ñun. pare wuñu nag mais ci kii bi de. xeeb bi de c' pas parce que buggoon nañ fa dem lendemain matin étudiants yi moom ñoo ngi ñuy woo fu ne jot naa mais sama kii ne hmm. passeport ndeysaan ñenn ñi demoon na ba ñu ne léegi ñoom solatuñu sa visa mais dañ leen daal di delloo mais seen kii passeport d' accord loolu moo nekkoon wax ci d' loolu leer na euh, euh, ràññeeku woon ngeen fi aussi trop